jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dal leen jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi euh, ponk ya ca gën a fës Ousmane Sonko ba tey ma nga ca garde à vue ca section de recherche euh, bu gendarmerie bu euh, Colobane ni ki démb ba tey moom moomu ñu fa woolu woon njiital Pastef Ousmane Sonko dinañ dem ba foofu fekk jëfa sunu ndaw Alhassane Ba ma nga fa nag ngir xam dëgg-dëgg la fa ruuse waaye jàppale Ousmane Sonko démb ba tey nag pat patiral la may gendarme gendarme yooyu nanguwul yëy yàbbi euh, ca la ñu ko doon euh, woolu ñu gën koo xam nag ci tuuma yu tegu ci ndoddom bu weesu nag wàllu sàkku googu ñu ne nag dafa daal di taxaw rek ngir yëngal réew mi euh, te loole nag duñu ko nangu benn yoon gis nañu réew mi it ba mu yëngoo démb bari na lool loo xamante ne nii yàq nañu ko ñoom doomi Sénégal yi mu nekk nag ay yoo song yoo xamante ne def nañu ko ci barab yoo xamante ne ci gis-gisu nag nit ñi jaarutoon ñu di ko def nag ba tax na Auchan boppam gis nañu ne juróom-ñaar kon euh, ci Auchan daal di koy yàq lakkate loolu nag am loo xamante ne nag euh, indi na ko mu metti lool ña féete ca waa Auchan di kilifa di ko ñaawlu bu baax a baax ndax la ñu xamle mooy Auchan nag ay Sénégal euh, ñoo fay liggéey kon waruñu ko woon di song benn yoon bu weesoo song googu sax ay càccit lu ñu fa nemmeeku la am na ca kenn koo xamante ne sax dafa doon liggéey nag ci wàllu sécurité ba ca Auchan kooku sax dafa mujjee ñàkk kon ñaari baaraamam totalit gis nañu ne ñu ko songee nag song bu metti boo xamante ne ba nëga ñu ngi wéy di ko ñaawlu fii ci Sénégal muy façon song ñuy faral di gis ñaari saa yu manifestation amee secrétaire général gérant station yi ci euh, Sénégal station service yi euh, di Ibrahima Fall di ngeen dégg ay kàddoom euh, ci biir xibaar yi mbokk yi gan gi tey Amadou Latir nduur la ñu koy wax consultant spécialiste la ci wàllug sécurité maa ngi lay nuyu bu baax a baax Amadou Latir Ndour maa ma ngoog nga xamee lool ci wàllug kaaraange ci kanam tuuti daanu waxtaan rek ci lu xew ci réew mi mbokki li bu noppee daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenekaay yi bu ngeen taaxir la tuuti ñu faram fàccee xibaar yi dal jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ni ñu ko waxee woon ci ndoxteel yi Sonko nag ba tey ma nga ca garde à vue fële ca section de recherche bu gendarmerie féete ca euh, Colobane euh, gannaaw rek ba ñu ko fa wooloo moom moomu di njiital euh, Pastef nag mu nekk loo xamante ne nii daanaka lañu ñu toppee rek bokk na xam nga ne ci ñaari tuuma yu tegu ci ndodom dinañ ci delsiwaat laata loolu ñu tënk lii rek ma nga xewee ca diwaanu Njaareem nag muy fukki ci ndongo yoo xamante ni nag police dalee na euh, teg loxo li ko waral bokk na rek ca la ñu taxawoon nag bloqué euh, kon wàllu dem baak dikk ba ca route nationale numéro numéro 3 ba euh, ñoom nag li ñu mettit lu ñoom ndongo yooyu mooy nag kenn ci seen professeur daar la ñu teg loxo ñu ne nag duñu ko seetaan professeur yi nga xamante ne sax ñoo féete ca lycée technique bu Cheikh Ahmadou Bamba ba ñoom nag amaloon nañu sax ab ndaje janoog taskatu xibaar yi di naqarlu jokkoo euh, ca Kaffrine it gis nañu ne ka yore wàllu ko jokkoo ga euh, féete ca Pastef bu Kaffrine ñu gën ko xam ci Abdoulaye Thomas fay moom nag daal dinañ koy rek defeere tey ci suba euh, bu juróom-ñaari waxtu jotee mu war a nag janoo mbaa sax janoo ba noppi ak procureur ba loolu nag mi ngi am rek gannaaw bi nga xamante ne dafa jël ay kàddu yu ñu jàpp ni tegginewul mu yëkkati ko ci page Facebook am doon ko jëmale ci président Macky Sall ni ñu ko waxee woon ci ndoxte li vue euh, fële ca section de recherche bu euh, gendarmerie gannaaw bu ñu ko wooloo euh, démb moom Ousmane Sonko ñuy fàttali nag moom fa yeggee ba tey nangu wala yëy yàb bi ma nga na patt pattiral Alassane Ba bu dee mi ngi ci bu mu jokkoo bi maa ngi lay nuyu bu baax a baax. mangook Alassane Ba du ñàkk xëy na mu dab ñu laata ñuy jeexal euh, xibaar yi ni ñu ko waxee rek euh, Ousmane Sonko ak tuuma yooyu tegu euh, ci ndoddom xam ngeen ni wàllug rek sàkku lañu ko doon toppee waaye gannaaw bi gis nañu ne nee nañ dafa taxaw nag ngir bëgg a indi fitna ci réew mi muy beneen tuuma bu ñu teg ci ndoddom moo waral nag sax ñu daal di koy woolu fële ca section de recherche bu gendarmerie waxoon naa ko ni ki sànkit gan gi tey Amadou Latir Ndour la nekk consultant wàllug sécurité buñ ko déggee ci wàllu kaaraange la gannaaw bu ma la delloo nuyu monsieur Ndour man rek li ma lay njëkk a laaj mooy li xew démb euh, ci réewum euh, Sénégal nga gis ni daanaka foo xool jeex na du rek ndakaaru diiwaan yi tamit daanaka tàngoon na jër yow sa jàngat bu njëkk boo ciy def. waaw maa ngi lay euh, fay madame Deme di nuyu téléspectateurs yi. waaw muy incident yoo xam ne vraiment c'était lu ñu lu ñu séntu woon la lu ñu séntu woon la amaana li ñu euh, li ñu bett mooy li euh, ñu bàyyee euh, mu am ampleur bu toll noonu dayo bu toll noonu donc parce que dama yaakaar ne normalement bu dee déggoowuñu ak Ousmane sonk ci dem bi te dafa mel ni déggoowuñ ci maanaam dé déggoo bi mooy mu jóge ci këram ba ba muy àgg bu ci déggoo amul rek mooy waroon nañu séntu ne ay incidents dina am donc euh, incident nag mun na am mais mu am dayoo dayoo boo xam ne foofu lay toll mais démb man li ma bett personnellement mooy dayo bi mu am ci biir Dakar ngoog dayoo bi mu am waaye tamit bu ñu sukkandikoo ca la xew démb wax nga ko léegi ci say kàddu juñu nga ko eh, ñàkk déggoo gi ci fa mu war a jaar ndax it ci wàlluk yoon it eh, wàllu kaaraange mënees na koo nangu Ousmane Sonko jóg ne fii laay fii laay jaar eh, ngir dem wuy ji ñu àppal ko yoon bu muy jaar ndax loolu it lees mën a nangu la. waaw loolu ci ci benn fànn mun mun nañ mun nañ ko nangu bu dee comme comme ni ñu ko defee démb bu ñu ñëw bu dee dañu ko convoqué. ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ko euh, fas ne jëlee këram ba ci ki ko convoqué mun nañu dem ba ci biir ñu xam ne fii nii euh, gën na yomb ëpp na kaaraange ñu jaar fële parce que force publique la ba tey donc euh, ce fait que loolu mun na ne mais problème bi mooy euh, fii mbir mi amee mooy dafa mel ni planifié wuñu dara planification bi mooy que waruñu woon dem ba foofu te Ousmane sonk sax xamul fi ñuy jaar donc loolu lu ñu waroon waxtaanee. diggante nit ki kiy dem ak kiy jël si wala kiy gung kiy dem ak ki ñuy gung kiy gunge ba ñu jëlee ko këram. maanaam waroon nañ ko wax ni fii nga fas fii lañ fii ngay jaar. pour yow sa kaaraange. ak fii ak fii la ñuy jaar ba nga àgg ci jàmm ak salaam. loolu moo waroon am mais dafa mel ni nag bi ndem déggoo amul si diggante par ñaari parti yi rek dafa mel ni planification boobu amul te foofu nag la problème bi problème bi amee. foofu la problème bi amee waaye tamit gis nañu euh, la ca rax euh, démb ñooñee ñuy faral di woowee nervi ndax gis nañu ni démb daal seen taxawaay bari nañu ko ñaawlu ndax ñooñu it wax dëgg seen place euh, am nañ fa ndax gis nañu ni ñu doxalee ñu doxalee ñoo xamante ne tey jii ñii ñu jàpp ni sax ñoo yore wàllu kaaraange gi sant ñu leen ñu doxalee noonu ñoom ñu gis violence bi ñu doon def ni ñu doon bun xa nuñ ko waxee bund xatalee ñenn ñi est-ce que ñooñu sax seen place amoon nañ fa place. li am démb moom li ñu gis démb ci côté nervi yi lu lu li tubaab di wax c'est un précédent très dangereux loo xam ne euh, war na bu ñu ko gisee tey waratuñ ko gis maanaam tey moom loo xam ne la loolu lu ñu war a jël en charge la parce que euh, li ñuy wax maintien l'ordre dafa dafa xaw a spécifique kooku dafa am ñoo xam ne spécialement ñoo xam ne dañoo spécialisé ñoom ñooy def euh, maintien de l'ordre parce que dafa am lu bëri loo xam ne dafa tënku ci maintien de l'ordre boobu ba nga xam ne du n'importe kii moo koy def sax ci biir gendarmerie wala police waxatuma nag ñoo xam ne bokkuñu sax foofu te démb nag loolu la ñu gisoon loolu la ñu gis ñoo xam ne bokkuñu fenn fenn fenn ñëw di dugg ci service su maintien maintien parce que mënuma ko tuddee sax maintien lool damay am problème pour tuddee ko service su maintien lool parce que nit ñoo xam ne tey jii xam maintien wax ne dafa lisible dafa lisible dafa légitime mais lisibilité acteurs yi maanaam yépp ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci processus bi mooy ñi ñuy jaamarloo ak ñi ñuy jàkkaarloo ñoom ñooñ noonu kenn ku ne dafa war a ràññee moromam waaye li am démb ñoo xam ne la xamuñu fi ñu jóge xamuñu li ñu sol gànnaay yi ñu yor c'est pas conventionnelul donc loolu mooy li nga xam ne moo grave ci ci ci ci li am démb li ci gën a grave it yaakaar naa ni monsieur bokk na ci euh, li ñu koy faral di gis du guléet ñu gis ko démb. Mm-hmm. yàgg nañu ko gis moo xam ci régime yi weesu euh, ba ci régime bi nga xamante ne moo nekk en place yu mel ni bu amee dañuy gis ay parti pris ni nga ko waxee ñoo xamante ne seen yoon nekku ci amul benn maanaam nu ma ko mën a waxee sax benn sañ-sañ ci yenn yi ñu gis leen ñu di ko def mu mel ni dafa nekk loo xamante ni dañu ko baaxoo di ko def est-ce que tamit euh, jotul ñu jëlee ko fi. mais loolu loolu loolu mooy problème xam nga li am démb dafa am benn benn benn partie rek bu ndaw boo xam ne moom la wone ci problème bi ñu am ci euh, sécurité privée bi mm-hmm. euh, tey jii boo ko xoolee ci ñaari côté yëpp boo xoolee ci ñooñu nga xam ne dañuy wax ne peut-être dañoo bokk ci gouvernement bi ñëw fa boo xoolee autant aussi boo xoolee tey ci entourage sécurité Ousmane Sonko bi da ngay gis ne même nit ñi la. maanaam ñu jóge ci même kër gi la xaajoo kii dem ci kële kii dem ci kële donc loolu mooy problème bi réellement tey jii il faut ñu mën a organiser sécurité privée bi ba nga xam ne tey. ñoom mun nañu liggéey benn ñu xàmmee fi ñu jóge ñaareel ba ñu mun a xam ne ñoom li ñuy liggéey si jàngal na leen ko ba nga xam ne du am problème donc foofu la problème bi ne mais sécurité privée bi réellement. moom moo am problème parce que booy xool ci côté yëpp. tey boo xoolee li wër Ousmane Sonko yëpp boo xoolee boo leen xoolee ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yoroon seen i yat fële même tenue yi la ñuy sol donc ce qui fait que ay gros bras lañ comme comme ni ñu koy waxee ay nervi la ñu euh, ñoom seen doole la ñuy jaay rek ñu fay leen bés ba ñu dem seen yoon jeex na loolu moo leen soxal li des. cadre bi nekk ci ginnaaw ñoom xamuñu ko sax da koy tàggateen wàllu formation bi da ciy am solo moo xam ñi fare ci ñi farak nguur gi moo xam ñi farak ñi féete ci kujje gi euh, jàpp naa ni wax dëgg ne xeexal yu mel nii dañ leen a war a tàggat bu baax a baax ñu xam aussi nu ñuy taxawee ci situation yu mel nii mais mais lool lool laay wax lool mooy problème bi au fait tey jii da ngay gis tey euh, autorité boo xam ne euh, dafay war ut ñoo xam ne ñoo koy aar mais dafay dem seet ki nga xam ne moo gën a ponkal mu daal di ko kii moom xalaatul ndax est-ce que kii may aar nii xam na sax xam na lii lii yoonu dëkk bi. ñoom daal jëmm ji la ñuy xool jëmm ji la ñuy xool. Mhm. xam nañu lan mooy yoonu dëkk bi xam na lan mooy yoonu métier xam na li nekk ci biir yëpp. léegi bu ko defee parce que tey jii bu ñu la expliquer li nga xam ne moom mooy kaaraange li protection rapprochée tey jii dafa ëmb lu bëri bëri bëri loo xam ne tey boo xoolee nit ki fi muy jëlee ay nitam tey jii Ousmane Sonko war na xam tey ñi nga xam ne ñoom ñoo ko aar ah, tey ñoom fan la ñuy jógee fan la ñuy jàngee lan la ñuy jàng donc loolu yëpp tey jii lu ñu war a xam la bu ko defee tey euh, bu defee ni beneen moromam ñoo def nii tey boo xoolee autorité yëpp noonu la ñuy def xamuñu seen nit ñi sax fu ñu jóge ponkal nañu jël nañ leen ñu ngi leen di aar buy jotee ñu jàppante ak ak force de l'ordre yi yàgg yàgg yàgg force restera à la ñu jël leen teg leen fële ñeneen ñi aussi bu ñu leen jëlee ci côté nguur pour ñu renforcer leen ñu dem defal leen loo xam ne gendarmerie jàngalu ko police jàngalewu ko mhm. beneen problème ñëw seen kaw donc problème bi ci sécurité privée la réellement ma nga kon mu yaakaar ni ma yaakaar ni jaadu na kon ñuy am ay daara yoo xamante ne sax wax nga ko léegi wàllug euh, garde rapproché euh, dañ leen ci gën a euh, tàggat dañuy des ak yow yër leneen laata may ñëwaat ak yow rek ci tënk mu tukkee nag ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite rek Auchan ku ci mel ni Papa Samba Diouf moom responsable communication la ca Auchan mi ngi naqarlu nag li nga xamante ni moom moo am démb ndax gis ngeen ni yenn ci Auchan yi dañu leen ne song nañu leen caxat caxatee leen euh, dañu dem sax ba nit ñi di dugg ci biir di sàcc loo xamante ne dëppoowul ak la nga xamante ni moom la ñu santaane la ca gën a métti moom mi ngi koy naqarlu bokk na ci benn euh, garde boo xamante ne moom dafa yëngu ci wàllu kaaraange ga ca Auchan euh, dafa mujj sax kon ñàkk ñaari baaraamam loolu nag rafetlu ko benn yoon ci gis-gisam suñuy jikko ci Sénégal daal la ñu war a xoolaat te ñu dañoo war a xam ni kër yooyu tamit ay doomi sénégalais ñoom ñoo fay liggéey bu ñu jàpp ni France moom moo songu démb waaye déedéet ay sénégalais ñoo song ay sénégalais ñoom nag noonee la ñu ko gisee mu doon loo xamante ne daal lu euh, métti euh, métti la leneen it euh, lu ñu mën a jàpp it bokk na ci Total it gis nañu ni song nañu leen ñoom it station Total yi gérant yi nag di ko naqarlu rawatina ak secrétaire général de gérants bi nga xamante ne rek mi ngi ñaaw lu loolee bu baax a baax Ibrahima Fall la koy wax moom nag la mu jàpp rek mooy tey loolee ñu yàq Euh, di liggéey moo nekkoon gan ak info ci suba ñu teewlu ko ak Chérif Dia. moom juróom benn station dugg nañ fa te ci lu nga xamante ne maanaam nit ñi dañuy dugg saccagé wala ñu dugg toj wala ñu dugg daaneel ay pompe suñuy jumtukaay yi nga xamante ne moom la ñuy liggéey moom la ñuy yàq te jumtukaay yooyu ñuy yàq noonu moom la ñuy liggéey ñun ay sénégalais lañ comme ñoom ay sénégalais lañuy jël ñu ciy liggéey ay marque kese la ñun ay entrepreneur sénégalais lañ. il faut que ñoom ñu comprendre ay entrepreneurs sénégalais lañu suñu suñuy dërëm la ñu jël dugal ci biir station yooyu pour mën a liggéey suñ ko yàqee ñun la ñu yàqal yàqal des pères de famille et ça je trouve vraiment que c'est anormal nit ñi nañ dellu ci seen xel am nañu sañ-sañu manifester waaye nag sañ-sañ boobu ñu am ci manifester war leen jox sañ-sañu ñu dem di yàq alalu jàmbur parce que lii ay alalu sénégalais la man ñuuluma ñu weexuma tubaab du ma tubaab nit bu ñuul kukk te ñi kiy liggéeyal ay nit yu ñuul kukk lañu ay sénégalais bon teint te nag ki koy taal na def attention parce que c'est des produits inflammables mën na cee bañ a mucc ñi ko wërit mën nañ cee bañ a mucc parce que produit yooyu pour manipuler leen il faut être formé nañu bàyyi station yi tranquille manifester leen su leen neexee mais li laay war soli bàyyi leen station yi bàyyi leen station yi loolu moom ñaan nañ leen ko ma di yàq saa su ne lii nag ñu bëgg a rek ba kañ monsieur Ndour kañ lay jeex ah ndax lii lii moom euh, wax dëgg yàlla neexul euh, benn sénégalais neexul benn sénégalais parce que aussi euh, euh manifester sa sa sa mer xam nañ ko mais nag yàq li nga xam ne yaa ko moom bu doon sax yaa ko moom mais loo bokk ak ñëpp. loolu moo ci gën a moo ci gën a doy waar te loo xam ne tam war nañ war nañ ci éduquer nit ñëpp. pour que lu ñuy mun a wax def rek ñu mun a moytu li nga xam ne yàq li nga xam ne yaa ko yaa da ko moom ak ñeneen loolu daal lu mooy li nga xam ne ci la ñu gën a war a gën a taxaw moo xam parti politique yi la moo xam kër yi la moo xam ak tous les niveau moo xam ci ci euh, daara yi la mais daal li nga xam ne ñëpp ko moom da ko war a boo ko defarul daal bu ko bu ko yàq ndax boo yàqee réew mi nga yàqal réew nga yàqal. nangoo ko ah. ñu euh, gis leneen également tukkee ci gouverneur bu euh, Ndakaaru euh, joxeeb rek ndigal ngir larme bi mën a rek daanaka booy xool dooleel force de sécurité yi ci jamono ji ñu toll waaye ci kawit bu ñu jëfandikoo ay ngànnaay ndax loolu tamit lu ñu mën a nangu la. waaw waaw loolu dañ ko lu ñu réglementé la au fait lu ñu réglementé la moo tax ma ne dafa am maintien de l'ordre dafa am ay acteurs yu bëri. acteurs yi moo tax dafay war a leer ci kanamu ñëpp maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy manifester ñi nga xam ne ñoom ñooy encadrer manifestation bi ak autorité bi nga xam ne moom moo nekk ci ginnaaw li ñuy wax chaîne de commandement. chaîne de commandement boobu comme commandement boobu nag boo amee day tollu jamono boo xam ne euh, préfet bi mun na leen wax ne ah li ma gis nii day mun na am mu déborder bu naree déborder. utiliser leen lii léegi nag day am yoo xam ne ay rek li ñuy wax réquisition spéciale réquisition spéciale nag mooy tey ji mun nañ dem ba bakkan war a ñu xam ne lii bu ñu génneewul loo xam ne tey mun nañ ko gis mu xam ne lii bakkan mun na see rot euh, ñu génne ko préfet bi mun na ne may naa leen bu ñu mhm. tolloo jamono bii nag mun ngeen génnee mais dafa am doo xëy rek dóor ci kaw nit ñi dafay am processus ay coup de sommation da ngay wax ak ñoom def ay coup de sommation ak yooyu yëpp dafa am processus boo xam ne moom lay topp mais réquisition bi moom préfet bi am na am na sañ-sañu jox ko force de euh, euh, euh, nu mu laaj bu mujj rek mu gaaw a gaaw ñu tënk ko ndax waxtu bi daf ñu xoj lan la ñu mën a jàngat ci lu xew démb ndax lu li xew démb wax naa ko du guleet muy am ci Sénégal luñ ci mën a jàngat. liñ ci mën a jàngat démb mooy c'était c'était simple bu ñu xamee ne tey nit ki convoqué nañ ko nañu ko te moom war na uyu ji seet nañu waxtaan ak moom ne ko tey Ousmane Sonko mënoon na jóge këram te kenn du ko xam ba mu dem kii mais loolu yëpp waxtaan la ay acteur bu ñuy def yu mel nii ñëpp xam ne dëkk bi lu lu jàmm rek moo leen soxal ñoom ñëpp mun nañu waxtaan de sorte que GIGN mun na ko exfiltrer ndànk yóbbu ko mu dem wuyu ji ci jàmm ak salaam ñibbi këram buy ñibbi. ma ngoog ñu lay jaajëfal bu baax a baax Amadou Latir Ndour ngay consultant may fàttali nga xamee tamit euh, ci wàllu kaaraange ñu ngi lay jëfal bu baax a baax euh, xibaar yi mbokk yi ñu wéyal ko wax nag ci kilifa diine yi nga xamante ni euh, ñoom dañu jàpp nag ñi fi mu ne nii war nañu dugal seen loxo mbaa boog sax ñu yëkkati seen i kàddu ngir wax ak askanu Sénégal ndax fi ne nii nag ëpp na loxo te nag jàpp nañ ni léeg-léeg seenu tekk tekkaaral dafay bari lu muy yàq ba tax daal mooy nañu wax nag wax sénégalais yi dëgg ndax fi mu ne nii li xew yéeme na te xamuñu euh, fan la yem ndax ay do yem ci bopp boroom dañ koy faral di wax ñu teew teewlu euh, Abrahama Chérif Mohamed Lamine Aydara euh, kenn la ci ñi nga xamante ne ñoo doon sàkku lu ni mel ñu teewlu ko ci micro Ousseynou Diop. président mouvement jeunesse islamique di Chérif Mohamed Lamine Aydara ñëwoon ci diwaan Ndar gi daje ak taskati xibaar yi fii nag daan na yëkkati kàddu wax ci lu jëm ci wàllu jamono jile la ñu nemmeeku ci réew mi ak jafe-jafe yu metti yi muy am moom nag nee na ñi nga xamante ne kilifa diine yi dañu war a àddu ndaxte jamono jile jafe-jafe yi bare na te coow li itam dafa takkar naa si boobu dañ ko war a mat ñun ñëpp amaana sax mat nan ko waaye mat bi tamit tekk tekkaaral bi dina ko xaw a wàññi tuuti kon nañu wax ak njaboot gi dama jàpp ni fi mu toll ni li nuy wax dialogue politique wala dialogue euh, parti politique yi dafa naa ni dialogue chef religieux yi moo jot. bu fekkee nag ci ñi nga xamante ni ñooy am politique ya daan na yëkkati kàddu ratax leen ko moom la mu gis mooy ñoom seen i bopp jamono ji li dañu waroon nekk benn te nag coow li dañ ko war a teg ci suuf. politique bi nañu xam ni ay ndénkaane rek lañ leen jox. te dañ koy yore ba yàlla jëlaat ko ci seen loxo ñu ba ko fi dunduwaat ñoom seen giru li leen yàlla tuddal euh, te te te ba ko fi ñeneen yorewaat ko. président mouvement jeunesse islamique nag àndul benn yoon ci ñi nga xamante ni lexa dañuy jël alxuraanu kërim wax yàlla bu tedd bi di ko fowee rawatina ci wàllu débat politique yi. kon waxu yàlla du fowukaay waxu yàlla war nañ ko téye jël li nga xam ni moo ci santaaneem. ak wattu li nga xam ni mooy teram waaye yoonu politique nekku ci du lu yóbbu ci plateau politique yi. ci kàddoom ndaw ñi jamono jëlee dañu war a gën a mànkoo nekk benn bàyyi na xuloo beeg xeex bi rawatina di génn ci mbedd mi di taal ay pneu wala boog di lakk ay oto. mu nekkoon reportage bu Ousseynou Diop ak Habib Seck ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoom la ñu euh, tojoon seen i kër ca aérodrome euh, bu kawoon nag ña ngay wéy di sàkk ñu jox leen seen euh, ndàmpaay mat nañu tey lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak ñaar ci njaboot yoo xamante ne nii nag fi mu ne ñàkk nañu seen kër di déglu kilifa yi te ba na gën a furaas di ay yoo xamante ne nag ñu ngi koy dund du ñoom képp tey yi sax seen njaboot nag ña nga ca biti wax dëgg nguurug Sénégal la sàkku rek ñu wax te ñoom Ibrahima Diame Faly Gueye depuis bi ñu daanalee seen kër ya ñi fi dekkoon ci peggu aérodrome bu Kahone nee nañ dund bu métti la ñuy dund jamono jile seen doom yi daanaka seen njàng yàqu na njaboot yu bëri daal dinañ tasaroo. nit ñaa ngi dund ay jafe-jafe yoo xam ne nii mënu leen ko sax imagine socialement psychologiquement financièrement et moralement. parce que nous avons été atteints dañu maanaam laal foo xam ne alors fu laal mën a yegg ci doomu aadama lañ ñu laal jaratul sax ñu ci delsi ci façon bi ñu ko laalee bu njaboot yi tas nañu nit ñi nit xiif nañu ils sont dans le désarroi nit ñi ñàkk nañ seen xel sax ñàkk nañ ko ñoom nag boobu ba tey ñu ngi xaar seen indemnisation ñu jàpp ne yéex na lool te mënatuñu xaar li ñuy xaar mooy ñu indemniser paralyser ñu comme alors dañoo ñëwoon par surprise nappaaje ñu noote ñu alors toroxal ñu ñu muñ ñëpp ànd ak tey ak dal ñu ne ñu dañ nañu leen dédommager jàpp nañ procédure bi ne nañu ba préfet wan ñu alors euh, le document Euh, euh, des impanse ne li waroon a calculer yëpp ak def yëpp def nañ ko léegi jébbal nañ yëf yi kii de droit jébbal boobu lañ bëgg ña ko yor ñu gaawantu ci lillaahi waral sori balaa dégâts yi gën a ëpp nii parce que. ci démolition bi nag kër yi féete woon ci penku aérodrome bu kawoon lépp la ñu daal di rajaxe lu mot téeméer ak juróom-benn fukki njaboot daal di tasaroo wuti location. ñu àddu ci jàngoro mbas meek tolluwaay bi euh, tolluwaay bi ci bisu euh, tey ji ci ñaari junni ak juróom-ñaar fukki test yoo xamante ne euh, def na nu ko jàppale ni ñaari téeméeri ak fukk ñoo dikk ak jàngoro ji di mbas mi ñaar nag ñàkk nañu seen bakkan ñeent fukk ak juróom-ñett feebar nañu ba loof ñi nga xamante ne ay cas communautaire lañu fi mu ne tey ñu ngi ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñu teewlu ki ñu dénk wàllug fegu gi ca ministère de la santé docteur Mamadou Ndiaye.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 fanweeri junni ak ak juróom ak ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar si ñoo xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak juróom-ñeent ak juróom-ñett ak juróom fukk ak juróom-ñeent wér nañ si juróom-ñett téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett seen seen bakkan mu des ñeent junni ak ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci lalu hôpital yi ak malade yi xam ne ñuy leen topp ci biir kër yi bi campagne vaccination bi ñu jagleel mbas mi tàmbalee ba léegi ñeent fukki junni ak ñeent fukki junni ak juróom benn ak téeméer ak fanweer ak juróom-ñett jot nañ ci ñàkku mangook ñu des ba tey ci wàllug euh, mbas mi sampub laaj nag laaj bi mi ngi aju rek ci wàllub science euh, science nag bu ñu ko déggee rek ci mbas mi mënee su cee génnee wàllug gëstu muy ñàkki wàllug faju gi lépp nag mi ngi tënku rek euh, ci science booy xool science boobu la ñu samp tey lan mooy dayoom ci mbas mi ci jamono ji ñu toll ndax dafa am ay jafe-jafe am déet lu ci mën a doon nag ñu ne nattu ko sax teel na bu nu sukkandikoo ci ñenn ci borom xam-xam yi ci wàllug science waaye lu leer ba leer mooy mbas mi nag am na lu baree bari loo xamante ni euh, jàngal na leen ko ci wàllu science science doon loo xamante ni lu ubbeeku la Ibou ndax mënees nañu wax mbas mi di coronavirus may na boroom xam-xam bi ñu saytuwaat lépp lu ju ci wàllu science taxawaay bi ñuy am ngir mën a faj askan bi bëri woon na coow ku ci nekk ak na nga daan gisee boroom xam-xam yi ñu ne ngeneel la ndax day jëmale kanam seen i yëngu-yëngu. xam nga mbirum science dafay développé te ku nekk dangay def say recherche science moo mel noonu science dafa ànd ak coow mais n'empêche ku nekk da ngay wut la solution bi nga xam ne pour ñu mën a euh, éradiquer fii de façon définitive feebar bi. jamono buy dox science bi aussi day dox. contradiction mooy tax euh, bañ bokk xalaat mooy tax nit ñi di gën a gestu te dañu toll ci jamono boo xam ne. ak Covid bi faw ñuy gestu gestu gestu ba yàlla defal ñu jàmm. fopp gestu bi yam rek ci la ñuy waxee tey suñ la waxee ni lii lii lii virus bi nii lañ ci xam fii la toll donc ci la ñuy bind protocole bi muñ toogee deux mois ñu gisaat leneen lu bees ci virus bi ci la ñuy bindaat beneen protocole. ko baaxoo di waxee saa su nekk science moom defal laaj ay wuute ci xalaat liñ ci jublu rek mooy ku ne indi li nga xam. buñ ko dajalee rek gis ci taxawaay bi mu cayib. ci woon ci wàllu débat scientifique jaxasoo woon na mais tey gis naa ne mi ngi gën a dal nit ñaa ngi mel ni ñu ànd ci lu bari. Euh, même si boo xoolee ci mujj gi mooy affaire vaccin bi mais c'est normal donc débat yooyu am mais li ci am solo bu am solo mooy jamaa jàpp ne rek ñëpp liñ ci doon waxtaan liñ ci doon wax mooy ku ci nekk da nga amoon ci yéene gu baax ak xalaat bu baax. muy taxawaay bu ñu mën a jàngat. ci wàllu philosophie tamit. su fekkee ne dañuy xool tamit ci euh, maanaam méthode épistémologie bi maanaam euh, l'épistémologie donc de la science. yoon yi ñu jaar ba nga xamante ni euh, génne nañu vaccin yi su ñu xool yoon yooyu dañuy gis ni évidemment am na ci yoon yoo xamante ni sax àndut ak éthique maanaam àndut ak loo xamante ni xelu doomu aadama mën na ko nangu. parce que tamit bu njëkk yoon yañ daan jaar ba génne vaccin du yoon yooyu la ñu jaar bi pas am na ci yoo xamante ni tey dañ ko génne ci nit ki directement bu njëkk njëkk ci microbe lañ daan génne en tout cas saafara bi eh, nga xamante ni mooy indi li tax ñu koy rey waaye bi paar jaarewuñ ci xeet bu mel noonu mais beneen xeet bu bees la ñu génne te xeet bu bees boobu nag c'est la première fois ñu génne ko ci mbirum euh, ut vaccin. di lal mbiru science ñu ne nag yenn saay dina jafe ñu bokk xalaat bi. waaye rek li ci gën a am solo mooy ca cappaandaw ga science boobu mooy jël ndam li jagleel ko askan wi dañu gis ci seen bopp ci anam yu mucc cant ak ngërëm ñeel na la Ibou Diouf ñu wax rek ci kuréelug senegal gi ëmb eh, ñi yëngu ak di toppatoo wàllug aj ak umra gi ñoom nag ñi ngi sàkku daal ci mbooleem diwaan yu nekk ci Sénégal fukki ak ñeent ñëpp nañu joxante loxo askan wi eh, ngir nag eh, daal di xeex ak jàngoro jàngoroy mbas mi kuréel googee nag ne bu ñu sañoon daal diwaan bu ci ne daanu fa wàccee kaamil ndax lu am solo la waaye askan wi tamit nanu sàmmanteeg geste barrière yi fexe i tamit ba joxante diisoo eh, di baalante àq ci lu baree bari loolu mooy seenu eh, mbébét eh, jamono ji amaloon nañu nag ab bëccëg boo xamante ni ñu ngi ciy jublu woon ñaax askan wi ñu teewlu njiital kuréel googu ñu gën ko xam ci El Hadj Idrissa Gaye ci micro Maymouna Ndiaye ak Mohamed Dieng. mais ci biir programme d'activité événement boobu amoon naa ci benn panel boo xam ne dama ko. xañ gi ñu xañ tiyaaba ja ñu daan am at bu ne ci dem ga ñu daan dem màkk di fa jële yiw ndax xajjal mabrur laysa lahu jaza illa janna jafe-jafe boobu mooy bu njëkk bi ñaareel bi it mooy jafe-jafe ji nga xam ne am na kenn ku ne xam ne ni ku daan liggéey ci aj atum yàlla liggéeyoo dinga am jafe-jafe jafe-jafe bi nag weesuwul la nga mënoon di ko def yaag ña ngay liggéeyal mën a li ñu na ma def ci amal ko ci quatorze régions yi xam nga cinq la woon la ñu waxoon waaye bi vaccin bi ñëwee ñu ni 14 li ñu namm mooy fu ñu dem daañu dem ci daara yi dem ci grande mosquée yi dem ci gaaru Thiès yi dem ci marché central bi bu ñu demee nag benn bis bu ci ne ndax ñu ëpp ci COSAPO ay sëriñu daara lañu teg nañu programme ay daara yoo xam ni bis bu ci ne dina wàcce kaamilu alquran mu gunge ñu ci tournée bi ñuy def ànd koog ministre ministère de la santé ñoo ñuy gunge ñu gunge leen ak kaamil yi ndax ak duwaa u salaaxul ñun dañoo gëm ne lii rek la yëf yi ñaan da cee bokk ñu wax euh, ci jafe-jafe yi nga xamante ne am na ci wàllug euh, entrepreneuriat fii ci euh, Sénégal ci Afrique rawatina rawatina tamit ci wàllug xibaar moo waral tey ay boroomi xam-xam nag boroomi xam-xam taxaw ngir tàggat ay entrepreneur seen lim toll ci ñetti téeméer liñ ci jublu nag mooy fexe rek ba programme bi nga xamante ne duppee nañu ko entrepreneuriat en Afrique nag ñu gën koo mën a ñoŋal ñi ngi ci jublit fexe ba gën a mën a xeex wàllug mbas mi jaarale ko noonu ñu ne duñu ca yem daanu fexe nag ba Afrique gépp ñu euh, wër ko ñu euh, teewlu euh, Seydina Ndiaye. mais ci biir programme d'activité événement boobu amoon naa ci benn panel boo xam ne dama ko dama dama ko accès woon sur le financement parce que dama jàppoon ne tournée bi li ma wan mooy nit ñi ci bëri au Sénégal ils n'ont pas l'information alors que les opportunités de financement sont là aussi boo xam ne dañu ciy waxtaanee aussi jafe-jafe yi parce que opportunités yëpp aussi ne sont pas adaptées donc aux aux préoccupations des PME yooyu dañu ko waxtaanee donc ci ci ci mois de consommation locale pour revenir sur euh, le le, le projet entreprendre en Afrique donc c'est un c'est un c'est un c'est un un c'est un c'est Africain laay wax mu am projet bi pour ñëw Sénégal euh, indi fi ay réseau de partenaires financier euh, comme wax na sànq entrepreneur du monde ak yeneen ay d'autres microfinance yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey d'ailleurs sax partenaires yu bëri sont déjà présents au Sénégal am na ñoo xam ne c'est à l'échelle africaine ak aussi à l'échelle mondiale ñoo xam ne da leen di indi ñun aussi ñu ànd ceeg le secteur privé euh, financier national ànd ceeg aussi tous tous les autres services de l'État yi nga xam ne ñoom dañu yor ay mécanismes financiers pour ñu informer ma ngoog solos ndaje moomu nag mooy ëllëg bu ñu génnee euh, ci mbas mi ñu gën a am ndëgër laay ci wàllug entrepreneuriat Seydina Ndiaye euh, nekk directeur des euh, PME yegsi nañu ci xët yu njëkk yu yéenikaay yi Mamadou Mouhamed ya ngeen jëf kaawa dëbu ci ñaari baat yooyee la l'observateur tënke li xew démb ci réew mi booy ubbi journal bi ba ca page katam di nga fa gis ay nataal yu bari yuy wane li amoon démb ci ndakaaru Ousmane Sonko mu sàndarma yi jàpp di ko dugal ci seen wata ay militan ak i manifestekat yu ñu di leen yóbbu ay jeunes yu taxaw di sànnante ay xeer ak i joorante la ak i takk der ay station essence ñu taal ba ñu tàkk jëppéet ay magasin au sang yu ñu caxat-caxatee ay ponkali nit yu toll nu leen neex gàddu seeni mbolde yii yëpp journal bi indil nañu ko boole cekkit di ñu wax li xew démb ak ne mu xewe njiital parti Pastef di Ousmane Sonko moom la juge d'instruction bu huitième cabinet bi convoqué ngir waroon ko auditionné ci tuumay viol ak menace de gi Adji Sarr gàll ci ndoddam Ousmane Sonko waroon ko wuy ji xëy ga ca cité kër góor bi ñu yegg see rond-point Estelle ndakaaru taxaw ne leen du ci dal ci corniche bi ngeen di jaare ñu nekk fa ay heure yu dul jeex di bëjoo ak a giit a ŋaas lacrymogène ya jolli ko ci benn watab gendarmerie yóbbu section recherche tuumay turbale ordre public bi ak bokk ci manifestation gu ñu leen joxul ndigal yéenekaay bi nee nañu loolee la ñu ko gàllanay tuuma ba jël ko yóbbu vox populi nañu ba ñu ko jàppee ba yóbbu ca la jàmm jeex ci dëkk bi amul nu manifestekat yi salfaañewul dëkk bi xeex nañu fi yàq nañu fi taal nañu fi jàpp nañu ñu bari ci ñoom ñu doon manifester àllarba juñul cook vox nee nañu moom la ñu dund démb àllarbay démb ji la ko tudde mu di àllarba joo xam ne yu bari ci dëkk bi ñu doon manifester def nañu ko ab doom ñi dee ba dee daali ca manifester yi nag journal le quotidien nee nañu moo di boutique Auchan yi ak station essence Total yi yéenekaay bi nañu démbit gis nañu ay ngandi ponkali nit yu wàccoon ci mbedd mi ak seeni gourdin doon jàppale takk deri ci seenub liggéey li manifestekat yi liggéey démb ci dëkk Antoine Félix Diome muy xamle ne duñu nangu ay débordement di démb enquête nee nañu moo di préfet bu Ndakaaru ndax dégg nañu ko muy joxe ndigalul ñu fitnaal journaliste yewoon ca rond-point bu Mermoz Sud Quotidien nañu coowal mbës mi salfaañe ne Ndakaaru démb dem nañu ba dégg préfet bu Ndakaaru mu naan yi nañu gaase journaliste mu di lool yéenekaay bi nee nañu convention des jeunes naqarlu nañu ko ñaawlu nañu ko am nay journaliste yu ca jële ay gaañu-gaañu woolu ngir ñu ñëw renfort Walf Quotidien dëggal xibaar bi ci xët bu njëkk ba bindal ñu ne démb soldaar si la ñu mujjeewoo ngir ñu ñëw renforcer takk der yi farandoy Ousmane Sonko yi meloon ni fitt gumbër sànni lu ne la ñu yàq lu ne la ñu caxat-caxate wane seen bopp wane seenu mer te yëf yi yamul woon rekk Ndakaaru yegg na ba ca Ndar ak ci Sigicoor sursoi nañu Ousmane Sonko ba ñu ko yóbboo démb gendarmerie war ko auditionné ñeppiwul gémmiñam benn yoon dafa meloon ne ko muuma libération nañu noppi la def neewul mbuu neewul mbaa bi koy awakaam di wax sax li mu leen ci tegal moo di dafa yomb torop journal bi nañu gendarme yi bi ñu koy laaj nu mu tudd tontu ak mu wax mooy kan Ousmane Sonko tontuwu leen benn yoon yéenekaay bi nañoo tedd moom rek ndax ñaari garde corps yi ñu jàpp ak caméraman bu jot na TV bi ñoom ñu yéenekaay bi indi nañu ay leeral leeral yi moo di moom Ousmane Sonko coowal mbës mi taxoon ñu woolu ko waroon ko auditionné ba lii lépp xew ci léegi nag bala koy gis bi di mën a woowaat in fokk da koy joxaat beneen convocation ngir mën ko auditionné ki ñu woolu woon démb auditionné ko di Ndeye Khady Ndiaye borom salon bi di mujj waaye juge bi nee na ko li fekk yoon parewul ci yëf yi ba yëf yi jeex bu ma la déggati nga wax ci en public nee na ko weer wu nekk àjjuma ja ca njëkk na nga ñëw fii tribunal signé. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Mamadou du Ndiaye mbokk yi nit cant ngërëm ñeel na leen yen yéen ñu fare woon ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti Mamadou Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Fatou Kiné di nuyu téléspectateur rek internet yi. xam nekk congé. mangook waaye euh, Mamadou xam naa ne maa ngi dem ci kanam tuuti toog ci geneen wet ga te bëgg naa nga indil ma leeral ci euh, xarala yi euh, démb moom xam naa ne xarala yi tamit jax na waaye dafa mel ni bari na lool ay fake news. voilà du ñu jóg ci di ko wax fake news yi bari woon na démb maanaam ay image ak wala def ay tweet yu nga xamante ni wérul wala dañ ko déformé ñun tamit dañuy ñëw baaxoo nañu di expliquer internet yi nan lañ gën a mën a ràññee yi wér ak yi wérul nga xam ne parfois doon nañu changer contexte xamante ni amoon na fii ci Ndakaaru wala Sénégal ci yeneen gox-goxaan yi ndaxte image yeeg yu bari partagé nañ ko ci réseaux sociaux yi te dinañ ci ñëwaat. ma ngoog ci kanam tuuti gannaaw bàkk bi lay doon jaa ngeen jëf mbokk yi.